ñu wax que ne mouvement bii di Y'en bii di FDS ak bii di FRAPP ñoom de ñoo dajaloo am njàqare lool ci ni corona bi dellu siwaatee ci Sénégal ci ni muy faagaagalee ci ni muy faatee ak ci ni kaay di yokkoo ñu ne biñ ne premier vague am na sénégalais yëpp ku ci ne foo munti ne jóg nga la nga am la nga mën la nga xam nga jël ko dollil ko maanaam ministère de la santé wala ñi yore mbirum paj mi ci sensibiliser maanaam yëgale ci yeete ci waxtaan ci dolli masque ci joxe maanaam saabu boobu ñuy jëfandikoo dem na ci sax ba nga xam ne ne am na si ñun ñu dem nangoo duggu pare toog waxtaan ak Macky ngir rek jàngoro bi jóge fi waaye bi ñu xoolee loolu noonu lépp ñu xëy Macky Sall ak nguuram nasaxal élan national boobu maanaam mbooloo mi senegal defoon nekk ab say nekk benn ñëpp d'accord ñëpp ànd votel ko budget yowu mille milliards jox ko ko biñ ko saytoo ca njeexital ga mooy ne moom jox na rakkam jox na goroom jox na ay xaritam ku ci nekk ay noos di yaataa yumbe projet ba programme ba nax saay ñu seetlu ne Sénégal gi ñu toll ak jafe-jafe bi fi mu toll ak métit bi fi mu toll ak ñi cimetière yi di feesee ak ñi sénégalais yi tollee ci ab njàqare jamonoy corona ñu ne ah nguur gi ken na loxom kenn indeetul nimbal ndax première vague bi Touba joxe na nangam ci xaalis ay privé joxe nañ nangam ci xaalis ñeneen ak ñeneen indi nañ seen wàll waaye bii yoon dafa mel dafa ak akum bàyyeeku li ko waral nag mooy na nguur gi doxalee moo ñun ñi muy frap muy FDS muy Yanamar ñu ne kat ñun dañuy jëlaat suñu bopp joxaat ko askan bi woowaat askan wi ci nañu farluwaat nañu respecté waat mesure barrières yi nañu solaat suñu masque waaye nag dañoo bugg bii yoon ñun suñu biir mouvement yi ñu teg ab kuréel wala boog ñu teg ak benn maanaam mbir moo xamante ne danañu permettre fépp fu sénégalais ne nga am ko nga maye masque mbala nga maye loolu ñuy woowee saabu yooyu noonu ñun ñu mun koo jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñooy les couches vulnérables ndax biñ ko seetloo ba un ko état du Sénégal dafa sétane école yi dafa sétane hôpitaux yi dafa les couches vulnérables ba boko ko ci biir gox ak goxaat ci bi masque amuñu dara kon suñu devoir la suñu responsabilité la en tant que ay organisation ñu kat dañuy lëkkaloo di sénégalais yi foo leen ci munti nekk muy fii muy fële dimbali leen suñu bop ci maye masque ak ci maye liñu woyé moy sabu saabu waye diko exiger état pour que mom ci bopam masque yi nga xamantene jaratul deureum na état distribuer gratuitement ci marché yi ci hôpitaux yi ci place publique yi ci arrêt car yi ci fep ak école yi ñu koy exiger mu xol naka la mën organiser campagne de dépistage moy manam campagne boo xam ne pour càmbar ndax doomu jàngoro bi mi ngi ci nit ñi wala déet surtout tàmbalee ko ci troisième âge parce que am na solo ñu ne bëgg nañ mu renforcer lépp luy structure maanaam kuréel buy yëngu ci mbirum pàcc ak wér bëgg nañ it ñu jaaree fi nag ñun nag am boog bërëb boo xam ne fa la ñuy defaree suñuy garab ndax it am na lu fi maam bàyyi woon xasum looroog nepp nebak ñoom reeni ak ñoom xas ñu xol naka la suñu scientifique yi xarañ gi ñu xarañ ndax corona lu mu jafé jafé jafé ñom def nañ ci ay jéego parce que ñun jaar nañ fa gërëm leen gërëm bu mag parce que personnel de santé bi ci liggéey bu xarañ bi ñu def ak les maigres moyens manam ñak gi ñak ay matériel pour mën ñoo aar terewul góorgóorlu nañ lu ñu mën ñu ñaan état ibi nak bi yoon ñu am suñu yëf bop defaral suñu bop suñu garab bu répondre ak suñu exigence déet ñu né bu loolu amé bëgg nañ mu dimbali ñu yi nga xamante ne nii ay HCCT amul lu njëriñ Sénégal ay CSS xom amul lu njëriñ Sénégal Idrissa Seck dafa ne moom wàllu ji na pour dimbali Sénégal ndax jafe-jafe corona wane ko gertel sa budget nel budget bi may naa ko waa Sénégal ñu defar ci ay masque defar ci ay sanitizer may sénégalais yi li laay war a sol loolu

ci jamono bii nga xam ne coronavirus mi ngi lëmbe àdduna lëmbe Sénégal ci jamono bii nga xam ne nit ñaa ngi toj ay këru sénégalais ñuy ñuy fanaan ci mbedd mi ay famille entière plus de cent familles mën nañ ko lim ñuy génn ci seen ay kër ci jamono bii nga xamante ne ñi ngi sàcc suñuy suuf séddoo ko seen i biir daggate ko jox ko seen i ñu leen neex ci jamono bii ñuy violer droit wu yi fayuñ leen seen ay salaire ñii ñu dig leen recrutement recruter wuñ leen ñii mënuñ yeggali seen jàng ñii ñu ngi ci jafe-jafe ñii ñu ngi ci loof ñii ñu ngi ci sonn hôpitaux yi am amuñu ay jumtukaay écoles yi sonn nañ ci nga xamante ne nii Sénégal maanaam dafa nekk ci yoonub gasax ca la nag ñu ñii constaté ne Macky sàll moom benn feebar moo ko ci dugg mooy feebarum. bi dal africain yi nga xamante ne ñoo nekk ci ouest bi yëpp muy feebarum dictature moom càmbar nañ ko amul corona moom virusu dictature moom moo ko moo ko dugg moom biñ ko noppee saytu nag ñu ne kon kii jéemuñoo aar ci feebar bii ñu dal mu ñu yokkal ab feebar boo xam ne nii yaakaaroon nañ ne deux mille 2011 ñun tàggoon nañu ak moom ndax utum solution moo ko fi teg ci réew mi ñu ne kon moom boo càmbaree ay stratégie am dafa jël li nga xamante ne Sénégal moo ko moom muy suñu appareil judiciaire muy maanaam suñu kuréel bi yore yoon def ko ab yatam di direk dóor képp koo xam ne bokk nga ci kuje gi ndax buggul kuje ndax ñemewul kuje moom mbër la moo xam ne day bugg mooy bàkku bëre bi moom day bëre takkandeer moom kese mooy bëre mooy daan mooy gañe bi ñu seetloo loolu ñu ne ndax kat am na yu fi jot a jàll ndax seetlu nañ kaawu kii di euh, Karim Wade seetlu it kaawu Khalifa Ababacar Sall waaye lu tax tey nguurub Macky Sall bëgg a profito ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote kii jiñ kii ñu bëgg cee profito fexe ca naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne

C'est pexé moy djema fexé nu ñu violer ko nday mi may ñu né nak ah attention duñ ko nangu Non nga Nous Karim fait non nga de Khalifa ababakar Sall non nga rajee Sonko sax ci liggéeyu kayam non nga fi jappé Guy nga fi Diop Karim Khouroum Khak..! Sey..! Assane Diouf non nga fi jappé ay nit ñi bok ci a ak lu ñoo rek lettre pour autorité bi dañoo bëgg a manifester wala yóbbu ko ci benn bureau ne ko wàññil say njëkk ndax cher nañu ñu ne mais lii nag dafa ëpp kii nag fan nañ jëm ak moom bu fekkente ne moom yat wu ne pare na koo jël làbbali ko ci kaw képp koo xamante ne yow pare ngaa taxaw jàkkaarlook moom pour xëccoo ci xëccoo boo xamante ne nii loolu la la ndeyu charte réew mi may ñu ne nag noo attention ñun loolu mënuñ ko sotaan ndax nag kat ci procédure bii nii. dañ cee gis dañ cee seetlu ab façon boo xamante ne nii nguur Macky Sall mu ngi koy bugg a def ci ab muusu ak akum tappale pour fexe maanaam ba élection yii di ñëw mu jaar ci porox ndoll moom dong mu doon candidat wala sax moom mu créer propre opposition am tegal ñu fi ay xeer ak ay xur dabb ba askanu Sénégal duñ xam fan lañ jox seen bopp ñu ne nag loolu ñun duñ ko setaan kon nag muy FRAPP muy FDS muy Y'en mi ngi woo képp koo xam ne doomu senegal nga ne fii ak nga ne bitim réew ngay góor ngay jigéen ngay mag mbala ngay ndaw mi ngi woo képp koo xam ne ci syndicat nga ne di woo képp koo xam ci parti politique nga ne di la wax na nag jot na jot na bu ñu setaanee réew mi dina nasax bu ñu setaanee mag yi dinañu takk ñu ñëpp ay buum di ñu drainer ci mbedd mi def ñu ay xar kon nañu pare ndax loolu pare wuñ ko nangu ci benn yoon ñu ne ñu ngi woo suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen wax ni ah kilifa diine kilifa aada ci ab dëkk am na solo am na solo waaye solo bi ñu bëgg tey moo ñu dimbali ñu ba kii bëgg a jël réew mi taal ko ñu wax ak moom ba kii bëgg a jël réew mi yóbbu ko fi ngay wooyee fu fu fu fu ndox dul am ñu artu ko ñu ngi koy ñaan kilifa yi ndax nag ci fan yii fi ñu jógee li ñu seetlu ci Sénégal mooy ne ah Sénégal fi mu jëm baaxul Sénégal fi mu jëm baaxul kon ñaan nañ ko kilifa aada yi kilifa diine yi ñu waxtaan ak moom mu delloo si xelam ndax am na solo beneen bi nag mooy ñun de ñu ngi koy accuser maanaam ñu ngi koy jiiñ

taxaw fa ñu fekk leen fa cokkaas leen indil leen jafe-jafe ñu ngi nii tey ci kaso bi ñenn ñu ne ñu ngi leen di torturer nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi seen i kër. et tout de suite le seul responsable maanaam kenn kese lañ moom lañuy moom la ñuy jiñ lii yëpp mooy ki nga xamante ne nii moom force la xam doole la xam ndax newoon na bu ngeen takkee ay morso yu xonk man gisuma ko faaloo ma seen morso yu xonk man guerrier la ragaluma ak nangami sàngam ku bëgg ay la ku bëgg jàmbar loolu ku bëgg histoire la.